foo tàllale sa loxo ne yaa rab di ñaan xamal ne moo ba nga ne allahu akbar ñooyam yàlla rek moo moom ñiy ñaan muy joxe léeg-léeg ci làmmiñi nit ñi dañ koy tàmmali yoo xam ne xawma ndax àgg na ca xol ya waaye lam wala làmmiñ ya rek ñoo ko tàmm noonu waaye bu àggee ca xol ya musiba la léeg-léeg nga dégg yàlla na nu diw sàngam defal nangam loolu kenn du ko wax su dee aw làmmiñ làmmiñ wa juum na su àggee ca xol ba nag musiba la kooku daa war a gaaw tuub balaa faatu yóbbaale njortu lim njortu ne nit des koy ñaan muy maye léeg-léeg nga dégg ku ne yàlla na leen diw fay juumte la su dee ca làmmiñ wala yam juumte la su àggee ca xol ba musiba la ak pay maliki yawmi diin foo taxawee ci biiru julli di jàng faatiha nee nga maliki yawmi diin yàlla moo moom bisu pay ba kudul sunu borom tabaraka wa taala bis boobee da ngay di séentu ak pay di ragal la nga doon def ci ay jaamu yàlla ñu bañ koo nangu yonent yaag saalixuun yaag awliyaa yaag borom maqaama yu kawe yépp dañuy def groupe jàq di séentu résultat lañ defoon kon moomu maqaama kenn du ko jox kudul sunu borom tabaraka wa foo ne yaa rab tàllal sa loxo rek na lépp effacé wu ci sa kanam ba mu des kenn ki nga xam ne mooy rabbu samawaati wal ard kon bokkaale mooy bakkaar bi gën a rëy ci boo xam ne danañ ko moye suñu borom tabaraka wa taala te boo ko seetloo nag wax dëgg yàlla rëy rek la mën a def borom bi nee na doomu aadama day ab tooñkat la maa ko bind te santuma ma di ko wërsëgal muy sant keneen ma jox ko dund te yëgul ne maa ko ko jox su fekkoo ne doomu aadama yëg na ne moom ba mu doonagul dara lam yakun shay'an mazkuura nga xam ne doonagul dara sunu borom tabaraka wa moo jekki ci coobareem def ko mu doon dara nekk ci biir mu di ko sàmm di ko sàmm ba mu génn mu tàggat ay loxo ñu fonk ko lool di ko dimbali di ko jàppale ba mu tàmbalee doon dara di jóge ko daanu ba mu yàgg muy dem di dox ba mu yàgg muy màgg ba mu yàgg mu jóg yorom xel di xalaat ba mu yàgg mu jóg xam lu mu bëgg ak lu mu bañ loolu lépp sunu borom tabaraka wa di ko ko defal mu dem ba mu màgg doon ku man lu ne ci lam jàpp mu wëlbatiku loolu ko yàlla doon defal lépp mu wëlbati ku sante ko keneen ku dul yàlla loolu wuutewul yow mi nga xam ne dangaa indi ci sa kër sa njaboot te da leen faa indi rek waaye bindoo leen di fàggu ji di ñëw di leen jox soxna yaag doom yaag kenn ku ci nekk ñu dem ba man dara soxna yooyu nga xëy xëy ñu dem di jox seen bopp keneen yeneen i góor xoola loolu fan lay àgg nit ka sa doom yooyu lañ am ci njariñ lépp ñu dem di ko jox ñeneen di la romb nga toog tumuraanke toog ci kër gi mënatoo liggéey amatoo lu dunde ba noppi say doom moom lañ amoon ñeneen lañ ko yut di la romb xoola métti woowu ni muy mel ci doomu aadama ànd ak ne ñooñu yàlla leen bind ni mu la bindee maanaam moomoo leen waaye dañ la fayul sa bor loolu moo tax mu diis ci yow su fekkee loolu noonu lay diise ci yow kon sunu borom tabaraka wa taala mi nga xam ne moo bind moo wërsëgal moo la may jàmm moo la mayum xel moo la may wërsëg kon kooku foo toll guddi ak bëccëg da nga ko war di sant di ko sant ci lu nëbb ak ci lu feeñ kudul moom ku nekk nga di ko sant cant gam jagoo su fekkee defal naa la loo xam ne lu jaar ak cant la ndax kat ku santul yàlla ku santul nit ñi doo sant yàlla ndax nit mën na laa defal loo xam ne jërëjëf dana ca tegu jazakallahu xayran dana ca tegu ñaanal ko dana ca tegu waaye su boobaa bokkul ak cant gi nga xam ne cantu xol la goo xam ne da ngaa xam ne xéewal gi donte ci sëñ bii la ko jaarale waaye sa borom moo la ko jox loolu lu mat a xam ne la kooku mooy mooy yàlla koo xam ne ci pas-pas la aju mooy bokkaale